coalition Diomaye bi tiitalu leen tuuti. ñun li ñu tiital xam nga lan la mooy lu yàlla au moins dogal wala yàlla war a dogal loolu mën nañoo tiital mais nit ñoom Diomaye seen coalition bi mënuñoo tiital parce que xam nga li reetaanu ci coalition boobu moom mooy ñoom il prônait l'antisystème n'est-ce pas noo wax ma rek bu fekkee damaa ju il prônait l'antisystème tey jii ils sont entourés de quel genre de personnes aujourd'hui des gens pur cent du système ñoom li ñuy wax ak système bi c'est des pur sang du système le système lañ lañ àndal tey le doyen Habib Sy moo nekkoon directeur de campagne du euh, Madické mm-hmm. nekkoon directeur de cabinet bu ab Ablaye Wade pendant tant d'années 2011 23 juin doyen Habib si fan la féete woon ci système bi wala ci anti système bi tey jii tey jii fan la féete ci ñuy wooteeg sa anti système kon waa anti système ñoom nan lañ gisee système waa joo nekk ci bi nga ñëw jël Mimi Touré. en un laps de temps nee na dañ koo dig poste assemblée nationale joxuñu ko mu gedd dem ànd ak Sonko. te moom moo njëkk doon clash Sonko. Mimi Touré ci système bi bokkoon wala bokkuloon système nga jël Aïda Mbodj moom mi nekkoon PS. tuddoon fi tuddee fi woon Ablaye Wade Fantomas jékki-jékki ñëw àndaat ak Ablaye Wade participer ci troisième mandat bu Ablaye Wade defoon defoon euh, une femme une xawma euh, une caution. Mm-hmm. pour fay euh, collecter caution Ablaye Wade kooku système bi la bokk wala bokkuloon ci système bi. su ma ko jëlee noonu fii ba émission bi di jeex ci dama lay limal des centaines de personnes yoo xam ne ñoom ñëpp ñoom ñoo tey ji ñoo encercler la coalition Diomaye te tey ji ñoom ñoo ñu bëgg jaay ni ñoom ñoom ñoom dañoo sell ñoom mosu ñoo bokk système bi te ñoom li ñuy tuddee système bi mais c'est le système qui les a formés système bi moo leen dugal école système bi moo leen moo leen formé système bi moo leen jox liggéey c'est pas des gens du privé encore une fois c'est des gens de la nekkoon Diomaye ci fonction la nekkoon donc ñoom kan moo leen formé boo ma jëlalee kenn koo xam da lay wóor ni tey jii musul nekk ministre mosul nekk DG mosul nekk député mosul nekk dara ba pare musul liggéey état fay ko kooku mën naa ko déggal sax tuuti bu nekk il est raisonnable ma dégg ko comme koo xam ne bokkul ci système bi bu ñu lërante fii ñëpp xamante te ñëpp ay déggante te ñëpp am xel nan ñu bàyyi jaaxaan yi te ñu fexe bu wax ak sénégalais yi dëgg xamal sénégalais ne ñu ngi dem ci ay élection jàmm la ñu bëgg dañoo bëgg au moins élection yi jaar yoon incha allah le candidat le mieux placé pour les sénégalais yàlla fal ko te kooku incha allah monsieur le ministre le président Amadou Ba lay doon donc bàyyi leen waxu système ci suuf ak anti système ci suuf moo tax mooy la seen projet duñu ko mës a dévoiler parce qu'ils n'ont pas de projet depuis tant d'années ils nous parlent de projet jusqu'à présent les sénégalais lan moo existé ci biir projet bi lan mooy au moins projet bi lu dul wax rek euh, du populisme waaw dañuy génne tubaab yi dañuy def nangam te ñoom après ñoo delluwaat demaat ci tubaab yi en plus ils ont négocié leur sortie de prison. mais pourquoi mais loolu euh, loolu Ousmane Sonko dem indi na ci ay leeral ci ñetti ponk yoo xamante ni moo waraloon waxtaan bi te yi nga xamante ni donc kon waxtaan am na. mais mais moom nangu na non attends dama lay wax rek xam nga ñoom dañ fi taxoon ne waxtaan amul il ne négocie pas moom mu ne du ma a négocier ak Macky Sall. mais démb tam li xam nga loolu mooy wane ni moom. kan moom Ousmane Sonko il a dit ça que ñoom ñoo ñëw envers moom di wax ak moom. jamais ah, Macky Sall mosul envoyé émissaire ci Sonko c' est Sonko qui a voulu négocier avec président Macky jox na ay preuves tey jii li fi am Pierre Goudiaby Atepa la la wax a tenu sa parole. moom na ko. mais moo ko ne demal nga waxtaan ak Ousmane Sonko moo ko yónni. nga tey jii moo tax ma la dépassé nañu étape boobu. parlons des candidats qualifiés Coupe d'Afrique tey ji suy am candidats yi nga xam ne ñoom euh, équipe yi nga xam ne ñoo qualifié ñooy dem jogante ji équipe yu qualifié ak loo aay aay aay aay da ngay toog ci ci télé bi seetaan en direct match yi nañu waxante loolu kon candidat yi nga xam ne ñoo qualifié nañu wax ci ñoom te bàyyi candidat bi nga xam ne qualifié wul ñu bàyyi ko moom mu toog ndax moom Ousmane Sonko mi mi fal euh, def porte am ci Diomaye mais attends mais mais depuis. il ne m'intéresse pas et il ne nous intéresse pas ñun ce mooy les gens qui sont qualifiés pour compétir mais nañu waxante dëgg nag pourquoi ñun ñu bëgg ñoo indi nit koo ne bokkul ngeen bëgg ko cee boole kon léegi nañu wax ci Karim Wade kon nañu wax ci Karim Wade nañu wax ci yeneen ah, Me El Hadji Diouf bi xam ne moom dam qualifié wul nañu wax si ñeneen ak ñeneen ñoom Mamadou Diop Decroix mais pourquoi ngeen bëgg a jël porté koo xam ne bokk ci ngeen bëgg ko cee boole te moom mu xam ne bokku ci ñi ànd ak moom xam ne bokkuñu si bokku ci nañ wax ci candidat bi ci bokk ah, yaakaar naa ne sax ñoom loolu moo leen gën a arrangé sax parce que ñoom tey jii nii si on parle de lui alors qu'on ignore le leur candidat mais ça ne fait pas de la publicité ma may leen boobu c'est technique de technique de comme laa lay wax nag. ah mais gis nañ ko moom mu ngi mu ngi mettre mu ngi mettre Diomaye en devant gisoo ko. c'est pas à lui de le en devant c'est la personne bi qualifiée moo war a se mettre en devant pour montrer ne au moins que il assume d'être le candidat li ngeen di wax ni c'est dangereux su fekkee ñoom la ñuy doxalee tamit c'est hyper dangereux et c'est ça pas ça pas ça pas les les aider ça pas les aider tey seen candidat sax dégg doo ko même bu ñu ko génnewoon tey teg ko peinture ko teg ko ci nit ñi sax Sénégal dootu ñu ko dégg parce que lan y a un sous-candidat boo xam ne moom moo nekk ci ginnaaw di wax rek il porte au moins la com sur lui il attire les gens sur lui. voilà ñu jàll ci beneen question bi.